Président Moustapha Nias, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions, mes très chers collègues, Monsieur le Président, Président Macky Sall de dafa supprimer poste Premier ministre wax ni dafa bëgg mbir mi gën de gaaw ni Sénégalais yi ñuy déglu gis nañu taxawaayu président Macky Sall bi mbënd mi bi nga xamee ni mbas mi ñëw na muy xeex bi nga xamee moom la ñuy xeex Covid lan mooy njariñu loolu parce que président taxaw na jël mbir mi saytul ko boppam taxaw ko ba képp ku nekk ci réew mi ak bitim réew gis nga taxawaayu président Macky Sall ci mbas mi nga xamee ne amoon na Sénégal ma ne amul benn réew ci àdduna bo xamé ni taxawul rafetlu taxawayu Sénégal en matière de résilience économique mais aussi en matière ci taxawayam pour xeex li nga xamé mo doon mbas Sénégal nak dafa am lo xamé suko ko sa doom amee koy nangou yalla mo def président Macky Sall aduna moko yakar Afrique daf ko yakar aduna yakar ko da ngeen di xol rek agenda diplomatique Union européenne. Angela Merkel Joe Blinken ak képp koo xamee ni yaa ngi compter ci sa ci àdduna tey Sénégal mooy sa référence pour nga ñëw fi pour yaakaar président Macky Sall pour mu taxawu foyer de tension yi nga xamee am na ci àdduna bi mais am na aussi en Afrique kon nañu sant yàlla parce que ku santul yàlla dangay xarab xam nga suñu constitution dafa am ñetti yëf yu am solo moom la wax dama koy rappeler suñu xaritu député yi bu la forme républicaine de notre pays ñun ñoo choisir nekk république article 42 c'est le président de la république qui détermine la politique de la nation article 49 wax ni c'est le président qui nomme le premier ministre mais qui met fin à ses fonctions kon quelle rek la liñ fiy coow yëpp kenn rek la kooku nag ni mu bëggee doxal ñu doxale ko noonu ni mu bëggee ñu doxale ko démb mooy waroon na jël ay pour tek train bi ci kaw raay bi teg na train bi ci kaw raay bi bëgg na léegi ku gungé gunge jàppale ko ci loolu waaye ñun dañ ko koy ñun majorité beneen bi ci des nag te mu bëgg ko wax

pour que le gouvernement avance. avancer je parce que Wadgal, Wadgal et yogo, Wadgal et yogo. si ak bu ni yaa ngi te tout ce qui n'est pas fait avec nous est fait contre nous te que duñ ko d'accord Inch'Allah. monsieur le président je mets à l'aise notre majorité nous sommes à l'aise parce que cette réforme là est une réforme nécessaire pour aller de l'avant pour que Sénégal tegu ci raay bi premier ministre ñëw coordonner activité gouvernementale lool la ñu taxaw loolu la ñuy xaar salaamaaleykum wa rahmatullah